yaa ngi dégg mais simol boobu mu wax nit ñi di ko café lan mooy simol mooy cent personnes yu topp tali bi topp tali mm. ah. nekk loo xam ne lay wax wax takk sa simol pourtant moom da koo décortiqué ko nag waaw wax mu ngi ciy jàngale mu ngi ciy jàngale mais gaa sa simol simol boobu lan la def gis naa koo xam ne tabaski daaw simol la taxaw ànd ak xale bu jigéen xale bu jigéen yor ñaari jasineer mais waa ji bi mu xamee ne ci jigéen sax la ñuy tane yi am ci yërmande moom dafa daw ndax bu ñu ñëwee góor ki la ñuy njëkk a wàññeek jaas yi mais ñu jël nank lu ñu fekk yow ñoo ko moom Simon depuis vingt ans mu ngi am Sénégal eh, nit ñi koy doog a xam ak sama bi ñu am ci lu bon la état bi a mm-hmm. bu demee kii sàngara bu demee bay jar deux cent mm-hmm. xale bu seize ans di ko fooye quinze ans mm-hmm. gis nga gis nga deret moo nekk loo xam ne borom ndox di tali gis ko sax tiit su mu demee ba nit mën koo def man giñ naa ne cas bu am mhm. sàngara moo ko waral ak pulsu bii mhm. est-ce que est-ce que cas boobu ngay wax ni chambre sàngara ni ñuy waxee ne fekk nañ chanvre indien si appartement Aziz Dabala est-ce que du nekkaat chaque jour même bi mais loo xam ne danga nga koy utiliser soo bu dee jigéen nga soo amul góor dangay taal gaz wala nga wala nga boyal di jaaro mhm. soo gisul benn góor bu seq yow dara nan ma baal da ngay da ngay taal da ngay taal gaz def ci nii muy pulse moo lay wax loo xam ne daf maa leer naññi. loolu kon nan waxante dëgg loolu. li mu la que est-ce que parents yi amuñu ci part de ah, responsabilité. moom la la wax. simol bi bi ñuy def nii loolu yëpp parents yi la. Hmm. parce que ba fekkee da ngaa jur sa doom ci farata yàlla ak sunu su Muhammad xale bi toog sa kër nga toog benn 10 minutes normalement sa doom boo toogee 10 minutes yow yaay en tant que yaay war nga tiit quoi laaj man ana sama doom fan la hmm. nekk. Hmm. mais bu fekkee ni yow da nga laisser xale bi bu la waxee añ nga ne ko awma bu la waxee reer nga ne ko aw ma nii de sandwich guddi. Mhm. da koy wuti ji. Mhm. da koy wuti ji fa ndox daan taa nag boo demee di nga ko fekk tepp tepp. ba tey ñi doon baax a ngi baax te du ñu mës a perte seen valeur. Mhm. te dara jarul leen ko xam nañ ban soow la ñu nàmp. mais imaginer ki génn way bi naan gulu gulu takk sa yaram mais am na ñoo xam ne duñ ko si sinap. donc Sénap kooku dafa c'est que dafa dafa dafa dafa dafa yeete quoi en fait dafa wax loo xam ne na way la boo xam ne dafa yeete wax na te li mu wax actualité la am na quoi mm-hmm. mais bu bu ci xale yi ñëw da nga ciy gis koo xam ne day jël day tooyal morceau même bu genzul sax mm-hmm. day tooyal morceau defi naa naan takk sa yaram di mbool di ngay takk sa yaram di yooyu noonu mën na ñàkk ah. boo gisee sa doom di ko def da ngay dem nga arrêté ko ah. nga ni ko lii bul ko def parce que fekkoo sa ndey di ko def sa baay di ko def mhm. gis nga il faut souvent ñuy delloo si tuuti démb ñu laal ci kaw kaw gi ñu doon kaw kaw gi ñu doon il faut ñu teg mbirum tubaab te doon ko mhm. parce que danoo doon kaw ko mais dañ koo bëgg a puus mais il ñuy andi démb nan ko xoolal Ousmane mi yéen a bokk baay de kii ku baax la jëlal référence Ousmane est-ce que xam nga ngóone nga yor sa doom nag àll bi yàqu. Mm. mais nag ka mais nag jigéen bu sëy sëy bay bëgg a dee. déggoo xale yar ay doomam bay bëgg a dee mais déglul déggoo ñu naan la garab caw muy tooy nga koy jubante xale daa fu mu toll. dëgg la li muy njëkk a gis lay xam. dëgg la ma mm-hmm. la ko tey waaw. man ma woy li ma la wax ñu dem si maam waalo. en tout cas en tout cas doy na waar insécurité bi si bi si réew mi Badara euh, Badara Gadiaga mi ngi koy wax comme li Mounass wax mais TikTok bi dañuy jël beneen outil di ko di ko di ko TikTok amaana sax dañ koy toppandoo. Hmm. wala ñuy def beneen aspect mu nekk lu jéggi day loo xamante ne doy na waar Cheikh su baaxee. Hmm. maam waalo euh, famille Aziz Dabala dem euh, dem jaale famille Waly macha allah mu nekk lu rafet loo xamante ne tey moom lañ ubbee li nga xamante ne moom moo di jetaay bi te aussi ñoom tam ne ñi ngi sàkku ci site internet yu baree ñu bàyyi mbir yi di ci wax loo xamante ne amul. naam enquête bi nag ne nañ mi ngi ci loxoy yoon jamono gi duñ ci mën sori ci famille ñaari famille yépp mm-hmm. fekk xamuñu li waral li ni mel en plus ñu ngi may wax ni am na huitième personne yaa yaakaar naan dégg ngeen ko dégg nga ko kon may sa ma dem ci maam waalo ñëw ci yow ci huitième person bi am na lu ma la ah, waxoon ah, ah, waaw waaw waxoon nga ma ko Cheikh ñu dem ci waalo mu sànni ci quelques kàddu ci li nga xamante ne mooy acte bi nga xamante ne Aïda sœur Aziz Dabala ak ay frère def nañ ko foofee nga xamante ne rek moom moo di chez la famille de Wali ratax ratax amaat seen diggante ndaxte kat ñoom ñaari famille yëpp ñàkk waalo. waaw Aïssatou. waaw loolu de moom lu rafet la parce que nit koo gis ku nekk wax dëgg yàlla bu dee tiis dafa dal ci seen kaw ñoom ñaan ñëpp. Mhm. lii rafet mooy kenn ki dem déplacé wu dem jaale ji. Mhm. te loolu ñu def mooy mooy yëfu mooy mooy mooy doxal Sénégal daal. parce que Sénégal mën naa ne lépp benn bopp la. Mhm. lu dal kenn ki rek day mel ni dal na ñëpp. asatuma nag ñoom seen tiis bi nga xamante ne ñëpp a ko bokk ak ñëpp. Mhm. kon macha allah loolu loolu ñu def loolu rafet la. Mhm. waaw loolu rafet la. macha allah waaw. insécurité bi waalo nga nekk banlieue waaye ñaar ñett rek yaakaar naa ni yaa ma ko gën a xam fuuf rawatina nag mbir mi bi mu amee ba léegi. ñu ci ëpp dañuy sax ragal a génn mam waalo. waaw ñu bëri dañuy ragal a génn parce que ku ci nekk yow yaa ngi xalaat ne man kat su ma jëndee mën nañ mën nañ maa gaañ. Mhm. sagam dangay nekk ba sa biir kër sax. doo am dalu nekk sa bii kër man sama biir kër sama buntu nekk daa wax ne bu diis a jotee ku fëgg sama fi day mel ne dañ koo jël mm-hmm. damay tiita tiita tiita tiit ba bëgg dee bàkk sëñ fàll bu timis jotee wa fu diis a jotee dootuma bëgg ku ma fëgg ndeysaan sama doom tamit euh, fitam day daal di dem ci du du tranquille daal mm-hmm. waaw parce que affaire u xale yi nga wax tamit day éducation xale yi nga xamante ni amuñu benn éducation bu baax mm-hmm. te ñàkkuñu sax éducation parce que nit ku nekk mën naa ne soo xoolat fa nga jóge mhm. parce que man dama naan ko dul xool ne am nga kër nday am nga kër baay. Mhm. am nga ay nawle war nga war nga ci loo xamante ni lépp lu sunu borom yàlla di tere. Mhm. ak lu yoon di tere war nga ko mën a bàyyi. dëgg la mais da yor sa doom mu mu judd fa mu war a juddoo. màggee fa mu war a màggee. nga di ko gis ci yoo xamante ne ni sa nawle bu la ca fekk. wala bu ci dégg. daan lay daal di xeeb. te du yoon parce que nit ki boo amee sa yaay mu nekk mag wala mu nekk xale dangay xam sa yaay ni mu la juree lan la. Mm-hmm. dangay xam sa baay fi fi mu la juree fan la parce que xale yi def lu bon yépp ay yaay yu baax lañu am. dëgg la. xale yi def lu bon yëpp ay baay yu baax lañu am. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> dañu koy def euh, li ñuy def dañ koy def def boo xamante ne ñoom ñoo ko choisir seen bopp. parce que yenn ñaari nga yedd ci xale wala nga yedd ci sa doom. dëgg la da lay tontu tontu boo xamante da lay leer kii li ñuy def ci vie am la bokk. da ko boole ci bundum saa lii muy def dootu ko bàyyi. Mhm. macha allah suñu xarit suma tàmmil yi Aziz dafa wax ju am solo. Mhm. dane jigéen mën na nekk ci milieu di jaay boppam sax ta fekk tayu ko. Mhm. mën na koo tay sax waaye lu mu yóbbu njabootam rek lay daw. parce que di ku nekk loola yow yaay koo li lay li ngay daw ba yor ko sa jaboot ak sa ak sa bopp. na bañ a nekk loo sàcc. waaye loo xamante ni yàgg suñu borom yàlla la du yàgg kenn. kon loolu yoonu ket nekku ci. Hmm. xam nga lan moo araam. Hmm. jël nit rey. waaw fekk nit yor alalam nga ne ko tungaat yóbbu. loolu dafa ñaaw. bi. Hmm. xale yi boo xasee jur doom li may wax rek gàcce goo fekk na ca jël benn teye. ndax boo xasee jur doom mënoo ne man nii ma mel noonu la sama doom mel. mënoo ne nii ma mel noonu la samay rakk di mel. yàlla nag mooy xam ki baax te yàlla nañu yàlla sàmmal. te yàlla nañu yàlla jubal ci darajay Seydina Muhammad allahumma amin parce que yor doom mu war mm-hmm. nekk fa mu war a nekk dafa am solo ci ci ci ci yaay ndax mm-hmm. doom nu mel dañ naan yaay la bu baaxee ñépp koy jurandoo kon yàlla na nañu yàlla sàmmal yàlla nañu yàlla teel sunu njaboot ci bàkki Seydina Mouhamed. macha allah tarkalla analyse bi c' est pertinent waalo li nga wax ci éducation de base ak mm. famille Aziza Dabala. ñu ngi nuyu Fat Fall Ballago ñu ngi nuyu bu baax a baax Fama Kassé Angèle ñu ngi leen di jaajëfal Mahib ñoom ñëpp Ami Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu am cofeel saa su nekk rek ñuy daal di fegg ak yéen ci li nga xamante ne rek moom moo di topp kaa ni ñu koy wax